moom règlement de compte la ma Modou Lo. bu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi. ne ko let's go. def ndànk rek <laughs> bu mu yaa xam te rek affaire yi moom saa yi ñu may seetaan. Boy ñaar la maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp et puis tey comme ni ñu ko waxee rek damay participer ci sensibilisation bi ñu nekk di def ci maladie bi ñuy wax Covid 19 ñu wax gën ko xam ci coronavirus. muy maladie boo xam ne gi gis na ni mi ngi def ravage ci àdduna bi yëpp ci puissance mondiale yi dëkk yu mag yi waxuma la suñu réew mi <coughs> ñu wax ñëpp ñu bàyyi ci xel bu baax ñuy njëkk def mooy sénégal yëpp ñu am conscience ni maladie bu existé la boo xamante ni mi ngi. mu ngi def ay rappage gis nañ ko bàyyi nañ ci xel et puis mesure préventive yi nga xam ne joxe nañ ko ñu bàyyi ci xel bu baax ñu raxas suñu loxo fu ñu toll di moytu te yu bari yi di moytu dajaloo bu bari bi mbooloo bu bari bi et puis lépp luñ ci tere rek ñu mun ko bàyyi <clears throat> luñ ci digal aussi ñu mun ko def parce que lépp suñu njariñ la et aussi ñu ngi rafetlu le président de la république le chef de l' état mesure yi mu ci jëm pour dëkkam pour peuple am loolu am solo bu baax a baax. ñu ngi leen di ñaanal ñaanal état bi di ko wax ni ñu leen lutteurs de tout cœur ak ñoom di leen doole di leen ñaanal suñu boom dafa leen jàmm feebar bi jógee fi le ministre aussi de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy dooleel ak ki xam ne moo ñu croisé muy le ministre des sports monsieur Matar Ba di ko wax ni ñu ñëpp ñu ngi a ginnaawam di ko ñaanal suñu borom tegg affaire yi ñëpp ku nekk mën a dem continuer sa sa activité ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di wax ñu bàyyi ci xel bu baax et di rafetlu aussi bi nga xamante ni kilifa diine yi am nañ ko bépp xew-xew bu amoon rek dañ ko pousse pour feebar bi te loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax gis ni tournée yu bari ba suñu tournée xalif général xaaral yi Cheikh Ayaw Cheikh Taalib bi tournée bi mu doon def arrêté na ko am nañ compréhension boobu kon ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ci tarixa boo mën a nekk rek ñu bàyyi xel bu baax baax jàpp mu dëgër ñu fexe comme ni ñu koy waxee rek daan coronavirus bi ñu koy waxee daan moom ci làmb lañ ko gën a xam. ñun mi la làmb ju yëpp ñu taxaw ñu fexe koo daan jël boo xamante ni duñ ko gisee ci suñu réew mu dem ku nekk nekk ci jàmm ku ne mën a continuer sa activité jàmm ci yéen jaajëf moom règlement de compte la ma Modou Lo. bu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi. ne ko let's go. <laughs> def ndànk rek <laughs> bu mu yaa xam te rek affaire yi moom seen doo samaan jarul buuxante ko.